asalaamaaleykum wa rahmatullah taxalaa wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen balu àq di leen bal àq man la soxna Xadi Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom seriñ Masamba ak soxna Sala Mbay ñu ñëwaat ci liggéeyu sëriñ Touba bu rëy bii mu ànd koog maam Cheikh Ibrahima Fall ak mbokki taalibe yépp yi ko àndoon ak ñoom di leen xamal ni Sëriñ Tuubaa liggéeyam bi rëy na lool li mu daj ba taxawal yoonu murit daj ko ba samp ko Tuubaa gi ànd ko maam Cheikh Ibrahima ak ñim ko àndaloon ñëpp loolu lu rëy la kon dama jàpp ne lépp lu mayut njabootuk maam Cheikh Ibrahima gi waruñu ko may kenn te gis nañ fi eh, sëtub maam Cheikh Ibrahima nelaw ñu dugg ca barab ba di ko denc coow lu ne ñu dégg ko ci te loolu yaakaar naa gis nañ fi lu ko gën a garaaw ñu bàyyi ko muy jàll kon comme loolu lan bàyyiwut mu jàll ñu dem ba jëmmi jamono ñu gis fi lu ko gën a garaaw ñu bàyyi ko muy jàll man dama xamut loolu nan la tudd ah sëriñ Muntaxa nag mi ngi si li ko war ndax day liggéeyal sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa seetaanu télé seetaanu youtube waaye am nañu ko jege ñoo xam ne ni ñu ngi seetaan ay télé ñu ngi seetaan ay youtube kon ñooñu ñoom bu dara ne càpp dañoo war a jóg balaa muy jàll ñag bi nga xam ne moo ñag yoonu murit nag am na ñu jóg taxaw temm ngir ñàggati ngir ñàggi ñag boobu sànni ko ñi nga xam ne dañoo jege sëriñ bi nag di seetaan ñuy ñàggi ñag boobu di ko sànni nañu bàyyi xel ni yoon wii ay caaxaan taxawal ko te ay caaxaan samp ko kon lu mayut waa kër maam si Ibrahima Fall de waruñu ko may kenn waaye gis naa ni am na loo xam ne mayuñu ko waa kër maam si Ibrahima Fall te ñu ngi koy may ñeneen ñoo xam ne ni seen maam defu dara ci yoon murit man nag mbir mi dama xamut nan la tudd ndax bu dee ne ay nag la sëriñ Touba am na ko bu dee ne ay gileem la sëriñ tubaa am na ko bu dee ni ay milliards la Serigne Touba am na ko kon gileem ak nag ak milliar jëndut yoonu murit bi sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñi ko àndoon ak ñoom daj ba taxawal yoonu murit taxaw samp Touba gi gasraay bi mu jóge njaareem ba dugg biir Touba te bu sëriñ mu ni woon na raay bi nan daj raay bi léegi balaa ngoon ñu daj raay bi. kon ñi nga xam ne nii dañoo bokk ci sëriñ bi te jege ko nan bàyyi bay bayal gi ak nas nasal gi million jaru ko milliard jaru ko te Sëriñ Tuubaa li mu am ëpp na million ëpp na milliard am na ñoo xam ne nag dañuy dunde yoon wi waaye dundaluñ yoon wi am na ñoo xam ne dañuy dunde yoon waaye dundaluñ yoon man soxna Xadi Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba ak soxna Sala Mbay maa wax lii am na ñoo xam ni dañuy dund yoon wi waaye dundaluñ yoon wi maam Cheikh Ibrahima Fall li fi daj waa këram yi ba nëgëni ñu ngi liggéey Sëñ Tuubaa tekkiwuñ seen laxasaay liñ war a nekk ñu ngi ci luñ ko mayut mayuñu ko njabootam de mayuñu ko sotam yi ñu ko fay may keneen waaye nan waxante dëgg te jëmmi yàlla suñ borom tax lun mayut maam Cheikh Ibrahima Fall ci yoonu murid bi mayuñu ko doomam yi ci yoonu murid bi mayuñu ko sëtam yi ci yoonu murid bi buñ ko fi mayee keneen lan moo tax laay laaj lun mayut maam Cheikh ci yoonu murid bi mayuñu ko doomam yi ci yoonu murid bi mayuñu ko sëtam yi ci yoonu murid bi kon buñ ko fi mayee keneen man soxna Xadi Mbàkke damay laaj lan moo tax ñu may ko ko di bay bayal ba yëfi ëpp loxo kenn ku ne door a jóg di bëgg a wax kan mooy Aïda Diallo fan la bokk ci yoonu murit Cheikh Béthio Thioune lay jaar di mbubboo ba bëgg indi ci yoonu murit loo xam ne nii mosu fee am jamono yont bi salaa salaam ba nëgë jigéen mosu fee toog ci ab sées di tudd doom di takk ay sëy dégguma ko fenn gisuma ko ci benn téere ñu bëgg jaar ci yoonu murit di ko fi def di bëgg jaar ci Serigne Saliou di ko fi def di bëgg jaar ci turu Serigne Touba di ko fi def bu ko defee ñu ne ñun ñoo yàq diine lislaam ndax ñoo fi indi jigéen juy takk toog ci ab sées te takki sëy di tudd ay doom mayuñu ko waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne nii lu ne defal na ko Sëñ Tuubaa lu ne daj na ko Sëñ Tuubaa mayuñu ko njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi may ko ay sëtam di ko may ay di jàll ñu dem nag léegi ba mu ëpp ay loxo ñu doog a jóg di bëgg a wax suñ Muntaxaa nag Mbàkke li ko war lépp mu ngi ci seetaanut télé ñi nga xam ne nii ñoom lañ fi teg ñuy seetaan télé di seetaan YouTube ñoo war a jël seeni matuwaay bu dara amee balaa sëñ bi di jot ñu fajal ko seen bopp ndax kenn du def lu baax ba sëñ Muntaxa ni la li tax ngay def loolu wala li tax ngay wax loolu déedéet ñagu yoonu murit gi ku ko bëgg a ñàgganti ñu feree na la sëñ mun Muntaxa dina la lit du ni la mukk li tax nga koy wax wala li tax nga koy def mukk ci àdduna ñun murid yi nag nan takkaat sunu laxasaay te xam ne sëriñ Touba li mu daj ci yoonam bi métti na ba taxawal yoonu murid li mu daj si Touba gii par samp ko métti na moom maam Cheikh Ibrahima Fall ak mag yi ko toppoon yépp njaareem tuuba ak Ngaabu benn la waruñoo nu ngooti kenn di fi mbumbaay walla nga fi feetoo wala nga fi noosoo ku am fooy feet wala ngay noosoo nga seeti foo koy defee Aïda Diallo nag li Aly Ngouille wax bu ko joxee ba tax mu dugg diggante Touba Njaareem walla Ngaabu ba def fi lenn lu bokkut ci diine lislaam wala lenn lu bokkut ci yoonu murit na xam ne ñun Serigne Touba la ñuy déglu ñun dégluwun ko dégluwun Aly Ngouille Ndiaye dégluwun Macky Sall Serigne Touba la ñuy déglu waaw Serigne Touba la ñuy déglu lu mayut njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gii mayuñu ko sëtam yi mayuñu ko doomam yi duñ ko may kii Aïda Diallo Aïda Diallo mooy kan miiriir ba kañ ba kañ da koo jar lii ëpp na ñun sëriñ Touba la ñuy diglu digluwun Aly Ngouille Ndiaye digluwun Macky Sall ndigalu Serigne Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba moo suy sunum Serigne Touba la ñuy diglu baax na ngeen jëf wasalaam murid yi maa ngi leen di laaj ba xam lu mayut waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall mayuñu ko ak ay doomam mayuñu ko ay sëtam ndax war nañ koo may Aida Diallo ba muy jàll bay egsi fii maa ngi leen di laaj loolu di wasalaam